te njëriñ lu dootul jeex te seex bi dëgg-dëgg yàlla bu la gémmee jiitu euh, daayira bi seen organisé bi rafet na lool ci njiitalu seex Abdourahman jataay bi silvise na trop waaye li mooy silvise yëpp xam-xam bi fi sotteeku moo ko gën a am solo et mbooleem ñi jiitu ci microbe bi ku ku ku wax rek waxee ci xam-xam foo xam ne rek su la nit ñi dégloo rek jëlee ci yow njariñ kon yéen ñu organiser jotaay bi yéen la fayante ak yàlla mi ñu mayoon ñu fekkee ko daaw mu may ñu fekkee ko ren yàlla ñu may ñu ñëpp ñu fekkaat ko déwén yenn déwén dàqal ñu ren jàmm ji ngeen a xoote ci réew yi ci Sénégal bi yéen la defal leen ko ci réew mi ndax jotaay yi mel nii ci jàmm rek la xëy su jàmm maamul jotaay dina lislaam yi mel ham? du mën xam kon yéen la may ñu jàmm jàmmi njaboot jàmmi dëkkandoor ak jàmmi réew yéen la jàmmal suñuy sëriñ waaye yéen la jàmmal suñuy guuri réew dafa amoon suñ benn journaliste yi yéen yàlla yërëm ko dafa gaañu bu yàggul daf daan wax lu reeloo nit ñi mu ne waxkat yi ñett rek ci ne ñetti façon ñetti façon kii dafa wax ba xeew boppam ci wax ji kii wax ba xeewi nit ñi kii wax ba xeew nit ñi mu ne ki wax ba xeew boppam dafay wax loo xam ne ci nit ñi du jëriñ su fekkee li ngay wax jëriñ jëriñut nit ñi duggut ci seeni xol su yàggee yi ñu la bu waaye xew nga sa bopp kii wax ba yi nit ñi nag wax ba xeew nit ñi nag mooy kii leen a dig ni ko sëriñ bi waxee ci seeni xel loo xam ne daf leen a tënk bañ tënk ci moom te duñ jëlee ci moom lu doy ndax lu doy yàlla rek ko am kii wax ba xewi nit ñi nag mooy Cheikh Baba Diallo soo dimbalee xeli nit ñi ba nit ñi seeni xel xeweeku buubaa kenn ku ci ne xam li nga do ci yàlla xam li sa diggante ak yàlla buubaa xeweeku nga jërëjëf Cheikh Baba jërë ngeen jëf ñi fi wax ñëpp ñu ngi leen a gërëm di leen sant Cheikh Baba Diallo suma doom la suma xarit la suma soppe la waaye yàlla rek a tax ak Cheikh al Islam bàyyi rek moo tax moo ñu takkee ndax bàyyi dafa waxoon ne danaa leen boo boolee mu xeeb bokkaleeg googu bàyyi waxoon démb moo dox suma diggante ak Cheikh Baba moom mu ngi wax ne mbubb yim yére yim sol soxna ak dafa am soxna su ko ñëw jox ko mu toog man bu manta bi ma sol moom ma ko jox këram la ma ko joxe mu ne ma manto bi bàyyi ma ne ko mu ne ma Maroc laa ko jëlee soxla gu ko te soo demee ci suma armol yére Cheikh Baba Diallo moo fa ëpp yi ma xotti yi ma dog kon kii man moo ko fay su xootee jataay feeg ba jataay ba tasee du ma fa jóg parce que njëriñ rek laa fay jëlee ku jàng jëlee fi njëriñ ku xamul dara sax soo amee ak dégg tey rek jëriñ nga fi njëriñ kon ñu ngi lay gërëm di la sant jataay bi yéen na ko yàlla barkeel yéen na ko yàlla saxal ñi ko ñi ko xootee yéen la yokk seen i mbir ci barke Baye Niass radiyallahu anhu salaamaaleykum wa rahmatullah